ndax loolu rek du àddina di kaa bi dëgg la nag foog ma tracé ko tax maa leen ko diggoon waaye nag foog ngeen bàyyi ma di ma may may nooyi mën a toppatoo samay soxla mën a dox samay course mën a xaat mën a fël faraale saaj yi ngeen nag tey dama xaat parce que dafa dem dama dama commencé dama commencé wér nii sama yaram bi daal dama dama ci commencé sentir wér daal parce que kaay fi ne nii dafa gën a dugg dafa gën a dafa gën a garaaw daal fi ne nii tey nag ñu ñëw ci épisode six bi ñu ñëw ci kaaw Doro Gueye kaawu Doro Gueye bi nag mën na dem ba épisode euh, ñaata sax ma xool kaa bi fu mu toll su ma ko calculer daal kaawu Doro Gueye bi mën na dem ba épisode quinze waaw parce que ñoo ngi ci épisode six ñu boole ci yeneen waa yeneen quatorze épisode muy mën na dem ba quinze daal kaw Doro Gaye bi waaye tey damay ñëw ci épisode six bi ñu commencé ci kaaw Doro Gaye bi. waa damay ñëw ci Doro Gaye nag fi mu ak mbaajo Doro Gaye ak Mbathio nag seen diggante yàgg na yàgg biñ yàgg nag moo waral Doro lu ne defal na wax dëgg nag moom tamit ah li bees na de lii na de. investir na de lim lim def bari na de parce que lal ba mbaaco daan tëdd mixa mbër yi di ci tëdd artistes yu ndaw yi di ci tëdd yeneen feccikat yi di ci tëdd vagabond yeeg band yi di ci tëdd yépp Doro Gaye jëndoon lal boobu am na benn jour euh, Doro Gaye di dox ba dajeeg mbaaco ak Clara ci benn place mbaaco def otoom ay bagaas di jaay daje Clara ne ko pour ma indi ci wan leen ne Mbathio hypocrite la li araab bi naan araab urum Mbathio urum la urum hypocrite urum mooy Mbathio pour wan leen ne Mbathio la naka ngay fanaanu jëkkëru jàmbur nga xëy suba dajeeg ñoom ci place déglu leen wax bi baax na dëgg dama kaa dama bëgg ngeen dégg ko effectivement nga dajeeg jëkkëru jàmbur ci place te fanaanoog moom xëy suba dajeeg jabaram ak jëkkëram même ki nga fanaanool nga naan nga ndaw si yaay féeri yaay féeri PDV waxal sa jëkkër mu teral ma sa jëkkër nit ku baax le di ko tagg dooro di xoogale xoggaleku te dooro ak mbaake bés boobu ñoo fanaan làng nañ bam neex leen ca bam ko jëndal kalaara jënd ci bagaasu Mbathioy valeur un million bi mu jëndee ci bagaasu Mbathioy valeur un million dooru yëkkati fay ko kaas xanaa hypocrite romb loolu fanaanoo jëkkëru jàmbur xëy ba dajeeg moom ci palaas yàlla nattu la nga dajeeg moom ci palaas jëkkër ji ak jabar ji te nga fanaanoog jëkkër ji pour wan leen ne hypocrite Mbathioy foo ko natt weesu na fa jëkkër ja daw taxaw tiit xulli bët yi mbaaco indi sàmm mbayaan naan ko yow eh, eh, pdv koo ko ko koo nopp ku dul ku dul kalaaraa <laughs> waxee non gis nga nag non mbaaco nag sooy wër hypocrite dëpp kalaara mu jaay kalaara ay bagage kalaara jënd ca bagage valeur un million fay door a génn xaalis fay ko cash ñun sàmm mayante teral eh, teralewante ku ne dem xanaa hypocrite romb loolu ah bref Clara bi mu demee ba yëg ne mbaaco ak jëkkëram dañoo nekk Clara dafa indi boucan bu rëy rëy rëy Clara dafa indi boucan bu rëy rëy rëy rëy daa di woo mbaaco menacé ko ba saaga ko moo ngi enregistré te nag dinaa leen wax dara yéen xale góor yi mbaatu enregistrement la am ci téléphone am bi lépp lu waaye di wax moom enregistré na ko te lépp lu nekk ci téléphone am bi xaat nañ ko mu ci sama téléphone bii muy vocal di preuve di photo di vidéo lépp loo xam ne mu ci téléphone mbaate bi rek xaat nañ ko mu ngi ci sama téléphone bi man am soo ah bi ko Clara woowee téléphone menacé ko saaga ko yuuxu ko turbale def bukaa xam nga jigéen rek bu dégg na sa jabara nga doxaan diw nga woo ko ne ko yow diw fu ma la fekk teral la saago ko ne ko doomu xaraam nga tekki woo dara patati patata commencé wax daal coow li bëri ndekete mbaacoo ngi enregistré karaaraa mbaaco xëy suba ne dafa yóbbu ka mbaaco xëy suba nangi nangi eh, ne da koy porte plainte xam nga mbaaco moom gendarmerie lay bi yebut police parce que police droit loi la ñuy doxal gendarmerie moom ku kayang kayang dem fa soo waxee soxla neexal leen rek ñu yenu la dugal la ci giri bi ñoom loolu seen liggéey waaye loolu xam naa ne euh, euh, euh, sama sama sama sama DG dina ci jóg waaw intérieur bi daal ki fi teg xale bu ndaw la procureur la ba pare magistrat la woon moom daal kafut ya daan am ñoxor njaay ñu yenu la dugal la ci giri bi duñ la may soo waxee baraaloo loolu amatu dëkk bi léegi loi moo fi dox prip ngeen ànd dem monsieur le procureur juge bi àtte léegi ay corrompu amatul Sénégal dama ko dindi lépp sàllam tooroo da doxatu ci yooyu léegi ah bi loolu amee mbaata génn enregistrement bi indi bukaa ne day yóbbu temps bu ñaa moo nekkoon brigade de recherche fu mba mbaaco ku sëkkat rek mu ne la daf lay yóbbu daf lay daf lay porter plainte temps boobu mbaaco ku ne sa cere ji saf na laaru rek mu ne la dama lay porter plainte mbaake daa di daa di daa di eh, daa di wax ne eh, daa jël plainte ba yóbbu ko di porter plainte Clara ah bi ko door a yëgee eh, waali sekk jël téléphone am woo doora bi mu doora ne ko ah kaa bi di délicat na mbaacoo ngi yóbbu nee na dafa yóbbu Clara police ah dooro mbaaco Euh, ak euh, ak Waly Seck ñu daje ca euh, kii nu mu tudd Bex Bex la waa ji tudd waa ji nu tudd di sax Bex la tudd pour que ah ah raxaseekaay oto bi en face Brioche Dorée bi Bex la waa ji tudd xam nan Bex fàtt naa turu waa ji foog naa waa ji noonu la tudd de Bex xaw ma Bex xaw ma something laay daal daal Bex daal la la waa ji tudd. turiwaay yi ñëw na ci man Mouhamed Niang Bex la Mouhamed Niang Bex moo moo moo nekk en face bi Rios bi yaa ngi dégg fa ñuy raxasee oto yi fa daje yaa ngi dégg waali fekk mbaaco ak dooro ñun ñëpp ñu dugg ci oto bi wax ba tur be terrain daan taat dooro yëkkati xaalis bu bari daal di jox mbaaco ne ko dama bëgg nga bàyyi waxu pelante bi nga teg ko ci suuf mbaaco bàyyi pelante bi ñoom naa la nu continuer seen ngoro léegi kaaw Doro bi nag bëri na bëri boo xam ne lii laa leen ciy jot a ñamal afta ma ñëw ci beneen épisode Doro afta ma ñëw ci waaye épisode yëpp duma ko def épisode Doro foog ma koy jaxase tey ma jox leen Doro suba ma jox leen keneen tey ma jox leen Doro gannaaw suba ma jox leen keneen wala su ma masal leen ci Doro indiwaat beneen épisode joxe keneen parce que kaay dafa bëri daal kaay daal mën na daal fi mu ne nii daal maa waxoon ne. cas bi dama koy traité trent cinq épisode la waaye seet naa ba seet daal cas bi euh, bi ma bi ma euh, bi ma waxee sama producteur bi nee na ma daal biñ ko xaymaa gis naa ne daal ëpp na trent trente six épisode nee na ma daal cas bi suñ traité film bi daal suñ ko suñ ko suñ ko arrangé normal euh, sama sama kii technicien bi daal su defaree film bi normal daal gis naa ne épisode yi dina dem ba soixante cinq épisode loolu la ma sama producteur bi wax démb waaw loolu la ma wax démb daal kaa daal fii la toll di wax ne Fane Mbacke toogal xaar sa añ a ngi ñëw di nga am ci añ bi di wax ne oustaz ba may menacé naan man dama war a dee yow soo xamoon sa bësu dee du ma tudd sax sa tur di la may bës ba daal lu tax xam nga lu ma bëgg xam Sénégal lan moo tax ku génn wax rek kenn génn taakale ko ca wet gi di ci wutaale bës. Aste nag ci kanam dinaa leen indi épisode 7 bi ma ñëw ci kaaw wéykat bu ndaw bi à tout moment rek wéykat bu ndaw bi dina génn à tout moment mbëri dinañ génn. à tout moment opérateur économique yi borom borom borom borom lii dinañ génn à tout moment daal yu baax yi dinañ génn toog leen xaar épisode yi man ak yéen ba soixante cinq épisode sama lii laay xaar nu mu tudd sama sponsor yi laay xaar waa damay fi ne nii sama sponsor yi xaar ci épisode yi parce que fi ne nii nag man tamit dama am sama soxla yu may dox foog sponsor officiel yi ñëw ñu daal di ràcc kaa bi ndax fi ne nii maa amee àdduna bi nii téye ko sama loxo ku bëgg toog ku bëgg bàyyi. ku mën xaar ku mënul dem réew lii la fii la réew mi maa téye àdduna bi nag kaay du jeex kaay kaay de dinaa leen waxal dara kilifa diine yaa ci kaa kilifa aada kilifa diine kilifa aada yi wéykat yu ndaw yi ngi dégg rappeurs yi kaa bi dafa tas de kaa bi mu tasee nànk kaa bi daal kaa doy na waar jaaykati oto yaa ci kaa ay waay téeri non fi ne sama sponsor rek laa xaar ñu ñëw kaay moom dama koy bëgg di tas su ko defee sama sponsor si ñëwee dugg su boobaa trois épisodes laa leen di jox par jour parce que soixante cinq épisodes dafa bëri waaw parce que su ma ci boolee kaaw Faat Mbàkke bi xam nga mën nañ dem ba cent soixante cinq épisodes parce que kaay fi mu nii dafa bëri de dañ ko war a tas mu tas de lii laa wax kon sama gaay ndékki bi ngeen doon xaar jox naa leen ko ba ci kanam à tout moment mën naa indiwaat ñu continuer débat Doro Gueye bi parce que débat Doro Gueye bi moom kiis la loolu wax naa la mën na dem ba épisode euh, quinze sax du jeex kiisu Doro Gueye bi jeex à tout moment nag mën naa laal feneen xaar